rafetlu taxawaayu président Diomaye Faye gouvernement bu Sénégal jaajëfal leen waaye fa caa yokk sàkku ci ñoom gouvernement bi état bi ñu fexe ba taxaw ci wàññi dund gu cher gi fexe attekat yi justice jaar yoon jàmm am ci réew mi ndax sénégalais fa bëri ñu sonn ak ndóol gi critique yéen a kaay ne waaye Diomaye Faye kay gañe na xolu chrétiens yi église bi maanaam fa kontaan ci moom libération ne président Diomaye Faye tamit fa demoon ca fiaaraa ba fa faa yëkkati kàddu nag ne ñoom seen ñu a yore réew mi li ñuy ñu di ko bay fexe daal ba mën a demal bopp ci li ñuy soxla docteur jëwriñ juñ dénk wàllu mbay mi fa caa yokk ne fanweeri junne ak juróomi ton ci engrais fañ koy séddale baykat yi te duñ leen ko jaay fañ leen koy may gratuite loolu baax na laneen lu baax lu nguurug président Diomaye fay bëgg a def mooy andi coppite yu am solo ci wàllu njàng mi ak njàngale mi te mooy yéen a kaay ne Ousmane Sonko njiitu jëwriñ yi fa jël fukki dogal ak juróom-ñeent ngir andi coppite yu mag ci école yi ci école Sénégal yi njàngale meeg doxalin bi daal fañ koy soppi complètement lépp gën koo ñoŋal syndicat jàngalekat yi nag fa ñoo rafetlu dogal boobu Sonko jël man ma jël wal fa jël yéen a kaay fekk fa gi ñuy fal ci kàngamu takk der yi ak séddale gi ñuy séddale jiw gerte geeg engrais bi jox ko armée bi yéen kaay bi fa jàpp ne projet bi de ci wàllu militarisation fa la jëm de enquête yéen kaay boo moytul coppite gu mag fa ah, jëlee ko place am naka noonu Ibrahima Bakhoum boo moytul fañ koy wàccee laaj bi nag mooy kan moo nar a remplacer Ali Siré Ba ay gët li rawut le quotidien yéen kaay mooy kër yi nga xam ne état bi moo ko moom Ousmane Sonko njiiti jëwriñ fa sàkku ñu defal ko ci bilan waa CGPA defal nañ ko bilan bilan nag wax ko mboolem kër ak immeuble yoo xam ne nguur gi fa ko moom yii fa koo liyee yii fañ koo jox ñoo xam ne ci nguur gi lañ doon liggéeyee yéen kaay bi lim seetlu nag mooy ne bëri na ay immeuble ak kër yoo xam ne ñi nekk sax ci nguur gu bees gii fañ caa xam li xam Sénégal jamono ji mooy coowal góor jigéen yi turbine yéen kaay na faa leen di fàttali nag li ni mel nag du tey rek da yàgg na fi ndax président Macky Sall mii fi Barack Obama ñëwee fa jëwriñ yi ñëw Ousmane Sonko ci kanam Mélenchon mu wax ne mbirum góor jigéen moom fañ ko toléré Sénégal yéene kaay bi na fañ koy fàttali nag moom Sonko li mu woon ci atum jëm ci mbir góor jigéen yi maam Maxtaar Gueye na ko hëy man faa waxut li ngay wax noonu toléré gi mu wax na fañ koy toléré góor jigéen Sénégal d'accorduma ci du dëgg fii kenn toléré fi góor jigéen ma ko waxee ci bés bi yéene kaay Mélenchon tubaab bi ne man sax bi may ñëw génnu njiitu bu France Macron ci sénégalais yi ñu doon rey ci ñaxtu yi fi amoon te mosu ci yëkkati kàddoom ñaawlu ko réew mi yéen kaay nee Paris maanaam France fa ñoo moytoo tontu Ousmane Sonko na fa ñoo jàpp ne provocation la def l'observateur moom fa xëy di addu ci guerre xeex ñàkkante bu mag bu dox ci diggante Amadou Ba ak ki fi nekkoon njiitu réew Macky li leen boole nag moo ñoom ñaar fa ñuy xëccoo ku nekk naan moo jiite opposition bi Amadou mi na leen wóor ne faaw nit ñi critiquer leen public yéene kaay moom fa ñoo xamal ne Aïssatou Diop Fall fa porter plainte Assane Gueye ñu gën koo xam ci Azoura Fall ba tey yéene kaay bi fa jox kàddu Ousmane Tunkara activiste ba nekk Amérique bokk ci farandooru Ousmane Sonko yi fa xam le ne projet bii maanaam ni ñu xeexee ba jot réew mi moom dugal na ci alalam lu ëpp benn million ci dollar lépp ci jënd ay cocktail molotov ak yeneen yi ni mel leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne askanu lat menge fa ñoo sargal seen maire ba Macoumba Diouf ndax direction yi ñu ko dénkoon ci état bu Sénégal lépp fa doxal ci njëriñu Sénégal sénégalais yi moo tax fa ñoo kontaan ca moom ñeneen ñu kontaanut ca diiwaanu kaolax ndangaan rawatina fa ñuy wax këwoon mooy ña dëkkoon ca aérodrome ba te ñu toxal leen ba léegi ña ngay daw ca gannaaw seen indemnisation ya maanaam ndàmpaay lañ leen waroon jox bëri na ci ñoom jotuñ ña nga ca ay jafe-jafe yu xaaddu jeex ba tax ña nga yuuxu wàllu keneen ku yuuxu wàllu ba tey ca diiwaanu kaolax ndangaan muy ab moniteur bu ñuy wax El Omar Wagne fa jàpp na injustice daanu ci kaw ñi ñuy wax ay moniteur maanaam ñuy organiser ay colonie de vacances ak ndax fa ñoo jàng la SONES fañ leen a xaaye ne buñ yooyu fekk amuñ direction famille bi dafa ñoo jàppoon loolu du dëgg du yoon ba tax fa sàkku ci kilifa yu bees yi ñu taxaw ci wàllu produit xeesal bi ñuy jaay mooy Fatoumata Ly ma ko waxee ci le point yéen a kaay libération yéen a kaay moom fa ñoo xamal ne ñaar téeméer ak ñaar fukki kilo cocaïne bu bon bii drogue bi fañ koo gis ca ab résidence ca Ndaayaan waa gendarmerie nationale ñoo ko fa fekk ci seen opération bu ñu doon xamal yaaw seetal jàpp nañ ca ñaari tubaab ak koo xam ne doomu réewu France la bu fekk baax Algérie police bu Thiès tamit fa teg loxo tekkee ko juróomi kilo yàmbaa mu ngóog nag ba tax jàpp nañ ko keneen ku ñu jàpp mooy activiste bi ñuy wax baa jaxate laas yéene kaay ne mooy ku ñu njëkk a teg loxo ci wàllu politique ci nguur gu bees gi lañ koy toppee nag mooy fa wax kàddu yi ñaaw ba jégg dayo yoo xam ne ku ko dégg doo ko rafetlu jëmale ko ci Ousmane Sonko libération ne waa dig yi fañ koo jàpp ni ki démb ca këram tey ci talaata ji fañ koy defee defeere lañ koy toppee nag mooy fa joxe ay xibaar yoo xam ne dara du ca dëgg wérut te loolu article 255 fa koy tere bu code pénal ñu ne déete waaye fañ koy toppee tamit wax yi ñaaw yu tegginut jëmale ko ci koo xam ne fay liggéey am lenn ci cëru président de la république te mooy ab président Ousmane Sonko nag fa ñaaw ba jégg doyoo ndax ci wàllu góor jigéen yi la ko doon tuumaal regard yéen ne procureur ci boppam nag moo santaane ñu jàpp ko waaye Sonko porte plainte de la koy xaar nag moom baa jaxate yéen baa ngi koy wax léegi si ko yéen ne ginnaaw bu ñu ko tegee loxo moom baa fi mu ñu ngi wër ab imam teg ko loxo bañ ko tegee loxo nag baa jaxate fa sàkk ne ay awakaam nañ ñëw preuve kon de tiisuma ko mbaaw imaam Cheikh Tidiane Ndaw fay waaraati ci ab chaîne YouTube moom ñu koy wër fi mu ngir jàpp ko la mu jàpp boo wax ñu ko moom lefee yéen kaay mooy xibaar bu tiis bu métti dal ci réewum Iran ah, yaaw seetal réewum Iran daal seen président ba fa dugg ci ab hélicoptère ànd ak ay ministre ak kilifa yu mag ca état ba ñu dem ba ca xàll ba ca montagne ya rek seen hélicoptère ba fa daal di daanu ñoom ñëpp ñu doxee fa faatu ñàkk seen bakkan ba tax regard yéen kaay nee na président Diomaye Faye fa jaale réewum Iran ci seen président boobu faatu ci accident hélicoptère rafetlu woon taxawaayam ba pare ñaanal ko yàlla